gëm ya ya fi bes ci diwanu afrique fofu ci sénégal ben ndaw bu ñuy wax iran Nek xalé bu jàmbaare ku nangu dogalu yalla te di muñax mom di dox ak mom bala ñuy sori dañ lay ñaan abonné abonewul nga abonné bësal like partager vidéo yi bësal cloche bi ngir lepp lu wad rek yo nga bok ci ñi koy jot ca njëlbeen nga Iran nekkoon ndaw ku nekk ci famille buy taaba taaba papa di taaba taaba yaay di taaba taaba pour dundal seen njaboot mu nekk ndaw nekk di jàng yàlla may ko mu nekk ci ekool bi dugg ekool pour jàng waaye xel mi daanaka wuyu siw ko ci njàng mi mu nekk fa di góor góorlu di jéem waaye muy jéem jéem doxul su góor góorlu ci jàng bi waaye jàng bi du ko wuyu mu dem ba xam ne jàng bi mënu ko may li mu bëgg donte ndaw la mu deside bàyyi école yi ay waajuram bëgguñu ko seetaan te bëgguñu ko forcer si loo xamante ne daf koy gaañ wala bu yàggee dina ñàkk lu bari te école bee koy waral kon ci ndorteel la ca teel ñu jël ko génne ñu génn ko dugal ko ci wàllu ñaw waaye ba tey loolu bënnul bopp bi ñu génnaat ko dugal ko ci wàllu menuiserie ba tey loolu bënnul bopp bi ñu génn ko dugal ko ci wàllu suude ba tey ah bi papa ji sonnee ci jaabante bi comme papa ji daf doon liggéey ci wàllu tabax mu indi ko ci wetam di ko tàggat donte boobu xale la mënul lu bari te papam doole ji demul noonu terewul mu ngi ànd ak moom di ko tette ci yoon bi di ko yee ci wàllu àdduna jamono di dox bés yi di dem muy gën di màgg di gën di xàmme waaye ba tey jafe-jafe yi teew a dem ñuy jub lu mel ni tabaski ah, dëkk bi tar lool waa waajuram di jaayante jaayante pour mën leen indil xar pour tabaski waaye mu mel ni lu mu jaayante rek dëkk bi gën a dëgër waaye terewul mu ngi uf njabootam fexe na ba utal leen ay yére yu rafet yu bee suñu sol ci bésu julli gi waaye yàlla mayu ko mu am xar bu mu leen indil waaye dalaloon na seen xel yar na leen ba santiruñ ne amuñu xar ay at ci ginnaaw wajuram bobu génne aduna. Iran ak juram bu jigen ak ay rakam wara dakar jàkkaarloo aduna bi ak jafé jafé yi nga xamantene mom la ëmbaale fiñu nekkon di kër bi ñu won mënatuñ ko fay ñu genn leen biñ leen génne ci dëkkandoo yi am ku leen fat abal leen fu ñu nekk ñu nekk ndiku kum foofu bay am leneen lu gën loolu Iran wéy si métier bi mu nekkoon di maçon dem ba am ci diplôme di jaayante di indi ci kër gi bi yaayam teñee ba summi yaay ji góor la te dafa am njaboot te mënul bootu si nit koo xamante ne moom it dafa am njaboot te jamono ji demewul noonu comme doomam mu ngi foraatu mu génne ut fu mu dëkk ñuy bokk loolu doomam bu jëlee li mu foraatoo ci li mu doon liggéey ñooy jox ko ñu fay fi ñu nekk dund si mu jox ci doom ji moom di Iran lu mu mën a fayee paas ba weer bi dee noonu la ko jàppoo muy muñ mettit ndax tey bu añee du reer wala bu reeree du ndéeg tey naan ndox tëdd mu ànd ak gorom kenn xamulu ko dara jamono di dox mu dem ba mel ni mécc boobu nga xamante ne moom la jàng ba am ci ay lijaasa moom daal nekkul lool ci xelam am na leneen lu nekk ci xelam mu bëgg boole ñaar yooyu muy wàllu reetaanloo nit yee nit ñu koy wax théâtre mu dugg di yëngatul si loolu arrêté li nga xamante ne mooy métier bi mu doon def ah jafe-jafe yi gën a métti ndax daanaka loolu muy yëngatu noonu mënatu ko fayagul bënnagul ba mu mën ci yor waajuram comme ni mu doon foraatoo foofu fi ñu nekkoon ñu génn leen fa muy dund métti loolu terewul mu jàpp fi mu jàpp rek gëm ne bés dina ñëw mu neex ndax moom gis-gis boobu la amoon comme li ñuy wax ragal yépp yàlla la wu nekk ci yoon boobu di kës ina gis xale bu jigéen bu mu sopp lool bëggoon ko lool yàlla def ñu ànd ci àndin bu rafet dem ba waa dëkk bi yépp xam ne ñoom ñaar ñii bëggante nañ xale bu jigéen bi wan ko ngor war ko teraanga moom mu wan ko ngor donte amul lum ko may ñuy ànd ànd bu rafet bés ñëw am ko jóge bitim réew ñëw ne doññet xale bi daf koy takk xale bu jigéen bi ñëw yeggee ko xibaar bi ah mu ne ko comme da nga tollu ci sey demal nga sey waxtaan ak moom ko mu dem waye mbeugel comme li ñuy wax day yobbu xel bes yoyu wala fan yoyu xel iran tooy na jooy na wéet na fu nek joy ndax mbeugel gi mu ëmbaloon soxna si jéggi na dayo mu dem ba nutu ko supporter mu wër ci koñ bi di laajte kan moy tak ndaw si am ko wax ne ki day du yor soxna ki ngeen bëgg may seen sœur bi mu laajte am kumu togal mu ne ko yow ki ngay ni lan la mu ko ki sama rak lay tak te bëgg na xam kan la ah comme Sénégal comme dëkk bi ñu nekk moom kaay ma wax la moom seerul du fa dara mu yegge ko ne kii bëgg a takk sa rakk ji du koy tee soxna mu mel ni dañoo yee Iran mu daw jubali kër ndaw si bi mu yegsee gis yaay ndaw si ne ko kii ngeen bëgg may seen doom ji du koy yor soxna de du li ma bëgg sa doom moo tax ma la koy wax waaye dëkk bi yëpp loolu lañ wax ah yaay ji tamit ne man dégg naa loolu waaye gëmu mu ko woon Iran topp si nopp bi di wax ba yaay ji mujjee ànd ak moom ju gëstu waa ji ku ñu gëstu rek même chose ah mu ne nag sama doom dama koy dugal ci lu wóor comme kii daal wóorul naa bàyyi mu dem xooli feneen Iran am mbégte jëlaat li nga bëgg lool te mënu koo bàyyi àndaatax moom jamono di dox muy gën a metti ndax mu ngi war a jànkoonteel ay jafe-jafe yi seen kër nu muy fexe ba dund nu muy fexe ba fay location fay fi nga xamante ne foofu lañ nekk fi ñuy waxee daana la ñu génnaat leen biñ leen génnee am ndaw su leen fataat waaye moom mu am kersaay nekk ci kër gi waajuram bu jigéen nekk fa ay rakkam nekk fa te amul lu mu leen jox mu ne moom du nekk ak ñoom waaye ci li mu doon yëngu ci wàllu théâtre am ñu ko fat mu am fa ay xarit bu jigéen ku ko doon toppatoo ku baax si moom lu mu am bokk ak moom di ko gunge si moment yu metti yi corom si mu amoon tamit di ko gunge ci moment yi jamono di dox corom soosu ñëwaat ah ne ko man dañ may maye mu doon lu diis nag yu metti waaye terewul mu continuer yoon bi mu nekk bi ko ndaw si waxee ne dañ koy takk yàlla mu xippi bëtam teg si yoonam soxna su baax muy mamiche ñu gën koo xam ci maman di yëngatu ci wàllu taara te di liggéey tamit yàlla gis ko mu sopp Iran lool Iran sopp ko ba seen diggante mujjee neex ba sëy tàbbi ci ah Iran takk na mamis waaye amul fum ko yóbbu mu jaayante ba ut benn néeg faske na fa wàcc soxnaam waaye néeg boobu dey amul lum fa def daayira bi nekkoon ci koj bi al ko ay basan ñu lal ko fa yaay ji ay al mbàjj mu teg ko ci kaw def ci dara bi ay xaritam yi mu doon àndal fekk jàppale nañ ko ñu defar néeg bi peinture ko ba soxna si mën si waaj soxna si ñëw doon muñkat dëgg àndax moom bëgg ko te yàlla tax ndax bi muy dugg ci sëy bi moom soxna si am na fu mu doon faraatu daan fa daan dooleem doon jàppale boroom këram waaye foofu dem ba neexatul mu mujjee toog ci kër gi boroom këram dem di foraatu di indi tey bu neexee ñu bokk lekk bu naqaree ñu naan ndox tëddi terewul mu ci théâtre bi di yëngatu ba tey bés ñëw mu mel ni soxnaam soos mu am jégadiw ko benn yoon muñal na ko toppatoo na ko xaar na ko biñ ko woowee yëgal ko ne li mu bindoon faske nañ àndax moom ñu faskee ne liggéey ci loolu fay ko ci xaalis bu takku xelam nekkul ci lu dul dem yeggee ko soxna ci ndax mook soxna si jaar nañ fu metti fu metti lool ndax dañ daan xëy yaayam jël xaalis bàyyi ko soxna si pour mu ndékki soxna si dem jëli ndékki jox ko di xaar mu des ngir mu mën a ndékki bu desul mun naa ndox xaar añ bu fi añ amee ndax seen yaay daan taaba taaba bu génnee jaay lu mu am buy ñibbi seen dugg ñu mën a togg bu mettee ñoom ñu muñ ñoo xale yi ndakate xaalis boobu yaayam daan ko jox goroom pour mu mën ci ndékki daka daan denc bu boroom këram yeewoo mu jëndal ko ko ndékki mu desee moom mu lekk mu desul moom mu muñ noonu la soxla si dëkkee woon ak moom bi mu jotee xaalis bi xelam nekkul lu dul mu daw jébbal ko soxna si bi mu yegsee si soxna si soxna si ne ko lii foo ko jëlee lii bari na de waaye duñ ci laal dara nañ dem ba sa yaay ñu jël xaalis bi ñu jox ko mu wax ñu lan lañ ciy def si lañ dawee jël xaalis boobu jébbal ko ci yaayam yaay ji kontaan ñaanal ko mu fay ci ay borom comme yaay ji mbébétam moo doon ñoom ñëpp ñu dajaloo dajalewaat njaboot ndax mësul bëgg doomam ju góor gi tàqali ko moom yeneen doom yi ku nekk am na fu ñu la yóbbu woon bu fexe ba ut benn kër buñ nekk ñoom ñëpp ñu dem fa famille bi dajaloo mel ni ñaan googu moo ko topp ba affaire yi tijjeeku tàmbali neex tijjeeku mooy li ñuy wax ñaanu waajur lu am la te soxna su la muñal xeebalu la xasu la du la jël baat dul ñëw tarbiyu la ku ko am ku ne sa àdduna xamal ne pare na pour jag yàlla pare na pour jàppale la te teg na li si yoon loo góorgóorlu lu ne dinga ko am te waajur bu sonn sa kër baay te muñ toog muñ bi nga juddoo ba ni nga toy mosoo ko dégg mu onk benn yoon ci yen biñ ko yen yow boo dee ndaw te xippi say bët di xool te teg fii sa waajur bu góor tegoon tànkam xamal ni day yàgg rek dangay jeng rekk waaye doo daanu benn yoon kon ndaw ñi fii laay tënk li nga xamante ne mooy waxtaan bi ci istuwaaru Iran boo dee ndaw da nga war a jéem def lu gaaw balaa doole jeex bul toog fenn di xaar naan baay fu may xëy tey ndax jamono jooju jeex na tey te comme li baay wax foo bëggul deewee bu fa nelawee lan nga xalaat ci istuwaaru Iran lan mooy sa gis-gis ci taxawaayu soxnaam si ko yàlla may ak waajur yi ko yàlla séddee kon mbokk mi bul fàtte abonné bul fàtte like bësal ci cloche bi ndax noonu nga ñu mën a jàppalee sa conseil say suggestion sa commentaire ñu koy xaar jërë jëf gëm na ne yàlla jeexul baawuñ gëm na ne yàlla jeexul lu mu metti metti metti bro gëmal na yàlla jeexul baawuñ ñaar gëm na yàlla jeexul lu mu metti metti metti gëm na ne yàlla jeexul